dii la wax ne am nañu mbégte ci dalal la donte dañ nekk ci jamono bu jafe jamono mbas waaye nag euh, mbégte mi yaakaar moo ko jur ndax bu fekkee ne dañu ne dañuy ubbi école yi euh, ci ñaari fan ci weer wi nu jëm yow nga jóg euh, ci ndigalu président de la république pour ñëw fii wane matukaay yi ñu jël ci sàmm xale yi sàmm ñi leen di jàngal sàmm ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore établissement yi loola day yokk yaakaar day dal suñu xel. Mm-hmm. ñuy wax ne xam nañu ne euh, tey jii boo jëlee mbiru école yu ndaw yi communes yi ñoom ñoo ko yore euh, boo jëlee euh, collège ak lycée yi conseil départemental moo ko yore mm-hmm. waaye ville de Thiès dafa ne am na loo xam ne aussi nekk na ci loxoom mooy liggéeyal waa Thiès. kon du ñu taxaw fële faste suñu loxo dañuy ànd ak ñoom <coughs> ak ànd ak képp koo xam ne euh, am nga yéene def ci dara surtout waa société civile beeg yooyu pour jëm leen a taxawu ci wàllu euh, wut ay masque jàppale leen ci masque yu xale jàppale leen tamit ci lépp loo xamante ne day dimbale ci cet gi waaye jàppale leen tamit ci euh, yëkkati koppar yoo xamante ne mi ngi tool ci 5 millions yu ñuy jox waa service d'hygiène mhm. ba ñoom ñu mën a def seen liggéeyu désinfection bi ni mu ware waaye nag euh, fas nañu yéene euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ak ñaar fukki fan ak fanweeri fan ci weer wi ñu jëm mooy weekend balee euh, di ñëw ñu def weekendu setal waaw mu doon ñaari bis yoo xam ne setal établissement yi lañ ciy jublu ñu ciy woo nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ASC e yi mhm. di ci woo ñi nga xam ñooy njàngaan yi di ci woo ndaw ñi di ci woo képp koo xam ne euh, yaakaar nga ni war nga caa mën a def dara euh, ñu àndandoo ko nag def benn say benn dank ndax Covid 19 bii sonal ñëpp yaakaar naa ni nañ ko fi mën a jëlee mooy kenn ku ci nekk gannaawal lépp loo xam ne njariñ amul njariñ lépp loo xamante ne mën nañoo xajale ñu gannaawal loola jiital li ñu bokk mooy fexe ba ñëpp ne fi ndax bala nga ni na am ne fa.